Walin de miel mom dagan na ci koor parce que bu fekkente ni bi da nga tak sa soxna mu lew la domb man ngeena and mais nan ngeen di andé and bi dafa am heure xam nga bu dul weeru koor amo len heure mais wéru koor finu la maye nga and ak sa soxna moy buñu né ndogu jotna ba fiñu nan as-salatu khairun minan naw koor gi mom linde miel bi da am heure linde miel bi moy noddu timis ba as-salatu khairun minan naw Funu ne dok dog jot na am nga droit and ak sa soxna bu dee bu bes la ngeen lin demeel ci digënté bobu damay ragal nak bàyyi won ko ba rété gi moy dakk ndax digënté bobu day gatt bu do noddé timis man nga and ak mom ba kérok ñu naan asalaatu xayrun min an nawmi waye fu salato nak dugg nga ci heure koor gi fofu mom amato droit djégé amato droit def dara ndax benn mag daf daan wax ni ku yërndu ñak bu yàggee nga tepp ñak gis nga ñu naan la bëccëgu weeru koor man ngaa jege sa soxnaak man nga koy raayak wóorul day faatu eh, déggal eh, roqee loolu wóorul ndax léeg-léeg mag ñi dañ daan wax ne kuy ñir nu ñag bu yàggee nga tëb ñag te am na ñoo xam ne dañoo sensible am na ñoo xamante ne bii mënuñoo téye seen bopp ragaju bu dëgër rek boo leen ko mayee ñu tàqalikook seen sago ah ku mel noonu nag dangay def li lislaam santaane comme yàlla may na la temps fi nga ndogoo ba fi ñuy xëddee am nga ci droit ànd ak sa soxna mais pas bi pas pas bëccëgu weeru koor bëccëgu weeru koor kenn du ci ànd ak sa soxna pour mu leer